ñi nga xam ne dañ leen di àtte dañ leen ko war a yëgal jox leen diir boo xam ne dinañ mun a woo seeni avocat suñu bëggee yokk avocat ñu woo ñooñu suñu bëggee changer avocat ñu yëgal ni ñu war a changer wax leen bés bi ñaareel bi ñi nga xam ne que ñoom dañ leen ràññee seen tur nekk ci dossier bi waruñu am sañ-sañ atte ñii nga xam na ñu ngi ci kaso bi te yëgaluñu ko avocat dafa mel ni ki mbir mi mbirum càcc la maanaam mbiru bettaate la ndax ci juróomi fan wala juróom-ñaari fan nit ñu nekk kaso avocat yi nga xam ne ñu ngi tasaaroo ci réew mi avocat yi nga xam na ñu ngi ci bitim réew nga ne ñoo ñëpp na nañu daje ci juróom-ñaari fan yi

procureur général yëgalu leen ko su fekkee nag ñoom ñoo fi nekk nekk réew mi réew la boo xam ne ak ak yelleefu doomu aadama dañ koy respecté tey jii kii nga xam ne moom mu ngi ne ñoŋ ca kaw ko moo gën a kawe ci juridiction de droit commun yi bu ñu demul cour suprême taxaw fii jalgati yoon ba pare nañ ñuy wax mu tijji bët janoog ñëpp ne lii ñu def yoon la ñu jël téere yi jàng la ca nekk mu taxawaat xoolaat nit ñi bët ak mbir mi mun nañ ko àttee loolu est-ce que àq ak yelleefu doomu aadama mu ngi ci léegi gis nañu li ñuy bañ ñu wax ko ci kaw ñu ay kaa yoo xam ne que ay ñetti at ñeenti at juróomi at mu ngi ci kaso bi kenn xalaatu leen kenn attewu leen mbiru xalifa Sall ñu ne tey dañ koy taxañ rek dégg nga léegi ñun li ñu laaj moom moo di que ñun ñoo wax nañ ñu attewaat ñun ñoo nekk kaso wante benn charte yi nga xam ne ci la réew mi di dox pour que ñu mën a atte nit ci mu ngi li nga anam yi nga xam ne ak xam ak yelleefam yëpp yoon daf koy jox loolu nañ ko respecté ñaareel bi it moom moo di sunu ak ak sunu yelef am nañu droit ñun avocat yi ñu mën a waxtaan ak ñi nekk kaso xamaat lan lañ bëgg parce que ñun dañoo yebal rek suñu ne ñu woon tey bu ngeen demee bëgguñu gis benn avocat duñ fa gis kenn suñu ne ñu fekkee dem leen fexe leen ñu génnee ñu fi loolu la ñuy def suñu ne bu ngeen demee yëfu golo la dégg nga bu leen sonnal seen bopp toog leen seetaan leen dañu ñëw toog seetaan leen amaguñu benn ndigal te ci ndigal la ñuy ñëw ñaareel bi it moom moo di que konk avocat yi dañoo bari am na ñu bitim réew xanaa yar ak teggin bokk na ci ñooñu ñu ormal leen bu fekkee ni ñooñu dañ leen fay nag te ñëwuñu parce que yëguñu ko wala mu amuñu maanaam délai bi nga xam ne que dinañ organiser pour mën a ñooñ kon doo leen fi gis kon ñoom la nga xam ne ko tegu na seen ndodd du ñoom ñoo ko sabablu wante yoon moomoo leen tere ñu accomplir seen mission te ñun ñëpp dañoo war a toogaat xam ndax mënuñoo ñëw kii jëm Kayoor kii jëm Bawol kii jëm Mauritanie kii jëm gine foog ñu toog la nga xam ne ko noonu la ñuy doxalee procès bi ñu waxtaan ci ku ci ne ñu béyal la sa waar ne la sa waar fii la tàmbali fii lay yem yow fii lay tàmbali fii lay yem ni ñi bañ a ñëw ku ci nekk di joggi ci sa kaw keneen wala ñuy fëlaxante maanaam mu mel ni marché défense dañ koy organiser léegi ñëpp gis nañ ne que bëgguñu ñu organiser défense Khalifa Ababacar Sall ak ñi nga xam ne dañ leen jàpp teg leen ci kaso te tey gis ngeen ne que na nga xam ne bàyyi woon nañ leen sax ñoom ñëpp dellu siwaat nañu parce nee nañu kat ne lañ leen teg doyul dañoo bëgg ñu teg leen le gën a yi gën a ak yi gën a metti tax ñoom ñëpp ngeen gisaat leen tey loolu nit ñi war nañ comprendre lu tax du Khalifa Sall rek moom moo fi nekk ak mbay Touré ak Bouda gis ngeen fi Traoré Fatou Traoré gis ngeen fi Yatma Ibrahima Yatma Diaw gis ngeen fi ñoom bokkum maanaam réew bi ñu nekk ban façon réew na nit ñi delloo si seen xel nañu delloo si seen xam te xam ne réew ñun ñoo ko bokk te xam ne ñoo ni neen la suñu biir la ret tey jii ku ci nekk da nga war a ànd ak sa sago ku ci nekk nga jox ko ak xam ak yelefam ndax kat ëllëg yow danga bëgg jot sa àq ak sa yelef kon boog bu ñu la toppee teg la la nga xam ne noonu nga doon doxale ah dina doy waar